ñooñu ñoo ngemb Macky sal may wax na di dama bëgg mu leer ñun contre ñu peuple français amuñu benn problème ak peuple français